ay ca mi ngi noonu asalaamualeykum mbokki ci Sénégal mbokki Thiès maa ngi fii ci Guy Sombel euh, ginnaaw hôpital régional kii moom kenn dootu ko laajte bu ngeen gisee nag ñëwoon naa fi dama reñëwaat ndax dafa am lu ma fi testé woon gis njariñ li donc su ma ñëwaatee war ngeen xam ni caaxaan du ma yëkkate sëñ Fallou muy jege na leen lool ngeen bëgg koo sàggane loolu pour lan bala maa wax ak yéen dama koy bàyyi mu nuyoo ba pare sëñ Fallou asalaamaaleykum. waaw waaleykum salaam soxna si noo ngi lay nuyu bu baax te di la siyaat te di la wax ne la dalal jàmm di nuyu itam mbokki réew mi ak mbokki dëkkandoo yi ak mbokki mbooleem raison Thiès ak mbooleem àddina bi kenn ku nekk daal ñu am yéene fekk la fa nga nekk jox la nuyoo bi gën a tedd ci nuyoo lislaam muy asalaamaaleykum wa rahmatullah ayca mi ngi noonu waaleykum asalaam wa rahmatullah taala wa mbokki Thiès dama xam naa ni yéen a ngi ñëw gaa te yéen a ngi siy gis seen bopp waaye sëñ Fall dafa yokk cere dolli ñeex dafa am lu bees sàq lu fi ñëwaat ginnaaw nag du ñëpp a ñëw balaa ñoo ñëw ci yu bees yi dañuy koy def ñuy rappeler yi nga xamante ne ñoo fi jot a nekk te yéen ñi nga xamante ñoo ngeen gis seen bopp dangeen koy wax seen mbokk yi yéen tamit ni leen ñëw leen dem ci sëñ fàll saw am na lu fa nekk guy sombeel ku ne xam na ni guy sombeel yaatuwul waaye boo ñëwee ginnaaw hôpital régional boo nee fan mooy kër sëñ Fallou saw dinañ la jël ba ci moom indi la fi jàngoro joo mën a yor jàngoro joo mën a yor te fekk nga yor ay garabam bu soobee yàlla bu leen yàlla leen dina deñ ba set wi ci yow te la ngay joxe du am benn solo na mu la koy joxe dalay jàppale te yàlla rekk tax léegi nag xam nga nu ñuy def nañu sëñ Fallou waxaat yi fi nekkoon balaa may wax ci yi mu doole yu bees yi nañu fàttali ñi nga xamante ni yéen a ngi seetaan bëggoon a ñëw tey waaj a ñëw te jotu lii na ñëw te mënu leen a xam lan moo fi nekkoon léegi na leen fàttali li fi nekkoon lan la sëñ Fallou bagage yi fi nekkoon lan la man moom am na moo ci xam mais oh, <laughs> ah waaw am na moo ci xam nag après naa ko yëkkati ba yéen ñëpp ngeen gis ko ba ngeen xam ne man caaxaan taxu maa jóg <laughs> waaw soxna si noo lay nuyu bu baax di la ziar wax dëgg yàlla noo ngi sant yàlla bu baax a baax tey sant mbokki réew mi ak mbokki dëkkandoo yi ndax nga wax ñu nangu laa déglu rek mm-hmm. yëkkati seen téléphone woo la ngir seenu wéradi loolu rek ak yëg la mm-hmm. loolu itam xeebuñu ko ndax ki nga xam ne day faj mm-hmm. kum faj lay wër ki wéradi itam ko ko faj lay wër kon ñoom ñaar mënuñoo ñàkkante moo tax nag wax dëgg yàlla li weesu sant nañ ci doomu aadama yi lool lool lool lool ndax wax dëgg yàlla gis nañ ci seen taxawaay ndax biñ déggee tànqam lu wuñ waaye nag da di mbir mu ne euh, di ko di ko fàttaliwaat ak di ko yeesaal daf cee bokk ba tax na daanaka damay soññewaat ci yi fi nekkoon ak yeneen yi ñu ciy dolli rek may tënk rek di wax ne wéradi yi nga xam ne am nañ ci garab xajut ci émission bi ndax fukki minute teg juróom la garab yi tamit xajut ci taabal ji ndax dañuy seet yenn yi ñu ci mën a présenté rek ñu présenté ko ci waaye képp koo xam ne da ngaa wéradi wéradi yaram ak wéradi gu mën a doon soo jëlee sama numéro woo ma téléphone nga wax ma ne ma wéradi gi nii ak nii la ma wax la la ma ca xam su fekkee am naa garabam may la am naa garabam su fekkee ma garabam ma te xam garabam may la xam naa garabam nii ak nii ak nii lay demee waaye daal li gën a am solo rek mooy ñu génn ki nga xam ne dafa wéradi xamagut fan lay jëm xamagut fan la jóge suñ gisee ci suñ ko fekkee ci biir néegam fekk ko ci biir saalam mooy mu ngi dégg ñu ci télé bi mm-hmm. su jógee mën a xam fan la jëm loolu mooy mooy mooy yitte ji waral ñu indi ko ci télé bi mm-hmm. pour wan ko nit ñi ndax jamono moo toll foo xam ne mm-hmm. nit ñi ku leen bëgg a dimbali ku ne faaw nga jaar ci wet yépp ndax kii liggéey wàcc dugg këram su fa génnaatee daa liggéey wàcc kooka amul jot yu bari waaye nag lu mu gàtt gàtt donte deux minutes la wala cinq minutes dina ko taal telem seetaan ko soo waxee lu ko concerné ci wàllu wéridéem nag dana ko demal mu jël téléphone am wala la nga cay leeral nga leeral ko su ko convaincre dajanteeg wërsëgam nekk ci sam faju itam yàlla mën na leen a boole waaye itam may wax ne bokk na ci samay ndénkaan daal maa ngi ñaan yàlla suñu borom képp koo xam ne sag wér yàlla jaaral na ko sama loxo foo mën a nekk lu mu sori sori yàlla dajale képp koo xam ne itam yàlla dogal na sag wér niwut ci sama loxo yàlla na la yàlla wanale ka lay wéral loolu mooy yéene ji nga xam ne mooy jëkk ci pas-pas bi may wax ne tamit daanaka damay jaaraat fi ma jaaroon ndax ci cité laay tàmbalee ñépp wax nañ ko waaye du tee rek ma di ko waxaat ndax moo fi nekk ci feebar africain feebar yëpp nag dafay wàllu yaan si waaye siti moom suñu yëfi bopp la ñoo ko moom ñun lay dal ñoo am garab yi nga xam ne moom moo koy faj te daa bokk ci sama gëm-gëm itam siti moom mooy li nga xam ne su xasee nekk ci nit ki bu doxee ba tolloog benn cër cër bu mu dox ba jàpp ko ñu am nuñ ko tuddee mooy su fekkee ne dafa dem ba jàpp biir bakkan yi borom di noyyeeg muy génn ndox ñu ne dafa amee sinusite su wàccee ba jàpp yax yi ñu ne dafa ame arthrose su jàppee sidit yi ñu ne dafa ame nerf sciatique nangam ak nangam yooyu yëpp nag ay xeeti wérdi yoo xam ne maanaam siti rek moom moo koy sabab ni muy daggee kawar ni muy ni muy ni muy daggee kawar di def ay xam di def ay picc di def ay góom loolu lépp siti la waaye nag ma di leen wax ne leen nit di nga ko gis aw yaramam rafet lool macha allah waaye fekk na booba siti ma nga ca waaye siti nag daa bokk ci ni muy yàqe nit. su tollee ci du yàq du def benn manifestation su yàqee ba pare nag lay doog a tàmbalee génne ay manifestation waaye boo fekk na mu yàq ba pare mm-hmm. waaye nag ma di leen waxal ne leen lu mel ni yaram wuy tàng daal képp koo xam ne yëg nga ko ci sa yaram muy guddi muy bëccëg loolu bokk na ci signe siti yi nga xam ne moo gën a bañ ci xeeti siti yi boobu nag du ànd ak yaram bi di xasan du ànd ak yaram bi def waaye daal fépp foo xam ne fekk na fa ndox boo xam ne ci bi yaram bi war a dund la da gis ne mi ngi ko yàq ci diggante sofala yi ci diggante li ci diggante wóom ci diggante yooyu yëpp maanaam maanaam maanaam ndoxum siti bi moo koy def su wàccee ba ci ba ci yax bi nag da ciy def ay tupp tupp yu ñuul ak yu mel ni ki noonu loolu mooy waral nit ñi ci bari da am mititu mititu tànk ak yu mel noonu mën nay lëndëmal bët yi tamit boroom ab gisam du sori bis muy toxoñu bëri di di sotti ndox yooyu yëpp ci xeeti jàngoro siti la bu dee ci jigéen itam maanaam mën naa dem ba tëj wàllu am doomam mën naa dem ba muy bañ a gis réegal wala réegal réegal yi di fausé bu defee kii du matal jékki-jékki ci biir weer bi mën ko gis ñaari yoon yooyu yëpp siti dana ko def waaye daal li siti di def dafa bari bari goo xam ne dama ciy lim rek yenn yéegi nag yi ci des kenn ku ci nekk loo ci yee ko xam ma suufi tànk yuy tàng mhm. tànk yuy xar di weex Euh, bu dee ci góor mu am ay siti ay tàngoor ci yenn barabam muy xasan di tàng ak yu mel ni ki noonu yooyu yëpp ci xeeti ci xeeti siti la ba nga xam ne siti moomee nag su noppee ci loolu day daal di tàmbalee jur ay doomam doomi siti nag taaba mooy hémorroïde su weesoo hémorroïde mën naa dal di jur li ñuy wax kurabët waaye ñii ñëpp nag ay doomam lañ léegi nag kenn ku ci nekk nag soo ma laajee nan lay doxee ci moom lu mel ni hémorroïde lu mel ni kurabët ma daal lay mën a leeral lool loolu nan la cay doxee waaw mbokk yi siti garaaw na de siti garaaw na lool te nag genn wal nit ñëpp ñu ngi ak moom genn wàll nit ñépp ñu ngi dund ak siti léegi nag nii laa defoon nag nii laa meloon nag lii laa doon naa nag yooyu yëpp tege ko nee te ñëw seet si sëñ Fallou Sow soo ñëwee soo gisee moom nga wax ko ban façon wu siti nga yor fan lay méttee ak nan la mel garab yaa ngi ni di tege mu wax la ban nga ci naan jox la ko soo dégg moom sa siti daal di deñ ba set wi ci moo gën nga toog ca sa kër danaan xaw ma fan laay fajoo ak lu nekk laay naan sëñ Fallou ngi jege leen mbokki cees doomi Thiès la Thiès a ko ñor Thiès lay liggéeyal yéen nga bëgg ngeen ànd ak seen wër gi yaram kon fu waay mën a nekk war ngaa jéem a xool fa sëñ Fallou nekk nga yow sekk si ko fa te fi mu nekk yomb naa xam léegi nag dama ko dama na na yëkkati garab yi wan ma ban ban moo gën a gaaw ci siti bi waaw léegi damay wax ne maanaam traitement siti doom yi dina ko def maanaam nga xam ne nit ki su fekkee ne dafa amee siti ma xool ko gis ne siti bi kat siti bu yamamaay la mm-hmm. mën naa jëfandikoo benn garab bii ci wàllu sitim di ko jël ñaar suba ñaar ngoon mm-hmm. su ma gisee ne siti bi kat wane na ñaari xeeti façon ndax siti dafa am siti boo xam ne dafa tàng mm-hmm. am siti boo xam ne dafa sedd ñaari siti yooyu nag boo ci xool ci ni manifesté ci yaramu nit ki di nga xam ndax kii siti bi tàng la yor di nga xam ndax kii siti bi sedd la yor su fekkee ne dafa boole ñaar yëpp nag wala dafa yor benn bi mu gañe ko ba tàmbalee génn ci yaramam mhm. su boobaa maanaam li mu waroon a fajoo duñ ko fajeeti benn garab dañuy day jar ñu yëkkati ñaari garab faje ko ko nga xam ne kon bu boobaa day moom yor siti bi mhm. su ma xoolee ba xam ne siti bi xaw naa kéemaane day boole ñaari garab yi mhm. kii nag mën na di ko naan su ko neexee mën na di ko togg laax san dépend ci moyen bi mu am mu togg ko laax nag moo gën ndax su ko toggee laax mooy mujj ci biiram bu guddi gépp muy muy faj ci wàllu yaram bi boobu xëyaatee suba su fekkee ne amul mooy ba togg ko laax nag mën na di ko naan. Mm, ni ñu koy toggee laax mooy. Mm-hmm. jëmmi kii mën nga cee togg laax maanaam euh, laaxu 15 jours laaxu 15 jours mooy. Mm-hmm. cinq jours danga koy xaaj ñetti xaaj. Mm-hmm. cinq jours bu ne nga defar benn daal di defar denc laax nag sëñ moo xamal na ne laax moom gaaw yàqu su ci dara lu ko saltee li nekkut. ñu togg ko toggin wu sell ba mu ñor mën nga koo teg nee lu mat semaine saa yoo soxlaa da ngay ñëw tibb li nga soxla rek daal di jëfandiku daal di bàyyi waat li ci des du yàq du def dara su loolu pour ñu amul frigo la ñu am frigo nag mën nañ ko denc ci seen frigo waaye nañuy fexe ba muy mujj ci seen gémmeñ nga xam ne kon kooku bu boobaa su fekkee siti bi dafa xaw a kéemaane day jar ma jëfandikoo ñaari garab yi pour wàllu sitim kooku laaxu sànqal wala waaw mën naa doon laaxu sànqal mën naa doon laaxu sànqal ndax nit ki garab bi mu lekk yaramam di ko jël ndànk bokkut ak garab bi mu naan ndax bi mu naan day gaaw a rees génn jàll bi mu lekk nag moo ñam moom fa fekk ñooy jiitlante ak yaramam di ko jël ndànk-ndànk mu di ko traité ndànk-ndànk ci yaramam moo tax nit ki garab bi muy bi muy jëfandikoo mhm. mu togg ko laax lekk ko moo gën mhm. sax mu def ko ay kii di ko naan ndax fi ne ndax fi ne noonu ci noonu ci noonu lay gën a efficace mhm. léegi kon bu dee ci wàllu siti day mel ni am na luñ ci leeral du ñoo wax lépp nag ndax xajut ci émission bi waaye dañ ciy tënk rek léegi nag su ko defee dañuy daal di jàll ci wàllu bu fekkee ne imurit dafa am ñaari xeet ba ñetti xeej benn bi ci biir bi lay nekk rek di juuxu di jooy boroom di lekk lim lekk du rees mm. mu def picc ci biir bu ko defee mën nay dem ba ci yàgg biir bi di rëy muy am ballonnement mm. loolu mooy imurit bi nekk ci biir comme nag maanaam waxuñu ci langue tubaab dañuy wax ci langue wolof pour mu leer ci ci bopp nit ñi dégg nga léegi nag am na ci keneen koo xam ne hémorroïde bi mu yor day génn bi génn nag dafa bari ay façon am na boo xam ne day def lu mel ni benn baaraam génn soo noppee yaa koy puusaatal sa bopp am na boo xam ne day yebal benn picc dong ci bunt bi denc na lopp juróom fukki picc ci biir benn boobu nag la yebal dégg nga loolu nag su fekkee da ngaa ñëw faj picc bi ba gisatoo ko rek te fajoo ko ci biir deret ji soo doxaatee lu toll ne la nga doxoon lekk la nga lekkoon da gis ne hémorroïde bi dellusiwaat na du caagee nag booba hémorroïde bi da nga koo fajoon ba mu wér mu dellusi déedéet dafa desoon ci deret ji picc bi dem nga yaakaar ne hémorroïde bi wér na nga continuer lekkaat la nga lekk nga gisaat hémorroïde bi hémorroïde nag baaxut ci góor baaxut ci jigéen baaxut ci ndaw baaxut ci mag ndax hémorroïde bi li tax mu gën a bon ci jigéen mooy ñaari barabam yi mu soxla ci boppam dañoo jege su amee hémorroïde daanaka dama lay wax ne la biir këram mënatu faa yëg bànneex metit dong la fay yëg ndax ñaari jege ku jege su fekkee dafa dem ba tollu diggante itam diisaayu biiram mën nay waral hémorroïde itam di génn bari fi ne bari na ci jigéen ñi ñoo xam ne suñ demee bay am doom la seen di feeñ kon hémorroïde baaxut ci ba baaxut ci ñoom te hémorroïde bi tamit mën naa dem ba ndax hémorroïde moom la ñuy wax jàngoroy kajoor dafa génn ci suuf si moo tax ñu naa ko hémorroïde waaye bu dee jàngoroy kajoor la nag da ngay gis ne nit ki ay bëtam mën na di jooy di génne ay laas yu weex bët yi di zone di def picc ci biir di xasan te dara jotu ko lu dul jàngoroy kajoor jafe-jafe bët daal képp koo xam ne am nga ko. Mhm. na nga njëkk a saytu sa wàll kajoor leneen loo ci yokk nga doog ko caa yokk. loolu lool lool mooy wàllu wàllu hémorroïde bi bu ko defee nag. Mhm. ñi nga xam ne seen hémorroïde day génn. Mhm. bii la ñuy jëfandikoo di ko ci diw mooy faj picc bi ci kaw. bu fekkee ne ñoom tamit seen hémorroïde bi tamit maanaam maanaam maanaam yéemeegul lool. mën nañ koo traité ci garab bii. di ko naan ñaar suba ñaar ngoon su ma xoolee ba gis ne hémorroïde bi nag. xaw naa euh, sonal boroom. te sori na ci deret ji tam bu boobaa jëmmi hémorroïde bi mën nañoo jëfandikoo ñaari garab. mooy ñaari garab yi. bu boobaa nag kii moom du ko togg laax moom da koy tibb rek par genn wàllu kuddu café di naan ci bii ñaari doom suba ñaari doom ngoon wala muy naan ci bii ñaari doom su añee di jëfandiku ci bii ñaari yoon ci bis bi muy su xëyee muy njëkk ci biiram di mujj ci biiram ci waa ci wàllu ci wàllu hémorroïde léegi nag may wax ne hémorroïde boobu tamit wax naa ci wàllu jigéen ma wax ci wàllu góor góor moom saa yoo xamee ne am na hémorroïde xamal na jafe-jafe tàmbali na ndax siti la njëkkee mu def ko signes yi mu koy def mhm. indil ko hémorroïde mhm. ñoom ñaar nag amuñ benn yitte bu dul soxla wàllu so songu wàllu këram mhm. pour nasaxal ko rek loolu mooy benn yitte ma bëgg nag ngeen bañ kee am euh, complexe ci yenn anam yi xam ne kat euh, faju bañ koy wax ku wér taxut ku moo tax te man itam dama leen di wax ne leen bépp feebar boo xam ne feebar bu saw sawaan la nga xam ne sama yenn mbokk yi mën nañ ko jërul ngeen di egg si su la neexee mën ngeen dem ba muusante jënd fa garab yi ngeen di composé ngeen naan ko waaye li ma bëgg daal mooy képp ki nga xam ne faju nga ba jàpp ne sa tawar dafa chronique ci yow wala sa sa sa feebar jafe na man ñooñu laa soxla ñi nga xamante ne daal seen leer na leen ne seen feebar dem nañ fu ne xool nañ fu ne lamb nañ ko ne gisul ci résultat man ñooñu laa soxla waaye bu dee ñi am feebar yu yi nga xam ne ñi ci des mën nañ koo faj moom wax dëgg yàlla mën ngeen a seet ñu fajal leen ko waaye daal man ñi ma soxla mooy ñi nga xam ne wéradi nañ wéradi ku yàgg ci seen yaram te xam lan la wala xamuñu lan la ñu ñëw ñu traité leen defal leen eh, ci ci ci ci ci wàllu googu kon ci wax naa ci ci hémorroïde soxna si waa ak siti ay mi ngi noonu kon ngeen xam ne hémorroïde euh, moom tam feebar bu doy waar la dëgg yàlla loo xam ne bu la dalee da ngay sa sago daal mieux vaut nga teel cee jóg balaa moo ëppi loxo donc sëñ Fallou nee na waa mbirum hémorroïde ku ñëw ba ci moom yàlla mën na la cee dimbali saafaraal la ko euh, am na bu bu ndaw bu caat mi anamu. waa caat daal mi ngi ah, nii. moom mooy caat mooy taaw. Hmm. damay wax ne kii mooy góori démb. man nag maa xool ci sama xel ak sama xalaat dund ak doomu aadama yi ñu jàmbat si seen wéradi mm-hmm. ma xool leen ba natt ko tuddi ko góori démb xam naa ne ñu tey ñu ngi fi xam naa ne gune tey yaa ngi fi waaye gun góori démb daal la ma doy mm-hmm. ndax wéradi yi léegi mag ñi lekkoon lekk gu baax ñoom moom wax dëgg yàlla ba tey fa tabarakallah mm-hmm. waaye gune yi léegi yii ma gis dix-huit ans vingt ans vingt-deux ans soxna si la yàlla xam doy na nañ dem faju ji bari na ci koo xam ne yàgg na ci célibataire lool te ami moyen wóolul boppam bari na ci lool bari na ci kuñ ci jox itam bala ngaa dem di fi jaar di nga waxtaan ak man moo tax ma bëgg na ngeen góorgóorlu ngeen dem faju ji ndax nit ki kenn ku nekk da ngaa siq ak sa bopp siq ak say nawle léegi nag kii moom garab la goo xam ne dangaa ngaa am yitte léegi bëgg koo saafara léegi mooy góor yi démb genn wàllu kuddu café soo ko ci naanee boo toogee deux heures de temps li nga bëgg da ko man doo la dimbali waaye loolu nag bokkut ak traitement traitement nag man gune li ma koy digal mooy ndax lii moom beeke la rek sa tànk day metti nga am beeke bu mën a soxla dox say soxla mm. waaye nag bala moo mën a efficace dëgg ci ni nga ko bëggee mm. day ànd ak nga boole ko ak garab bii nag dara tax koo jóg lu dul traité góor mm. defaraat góor ba muy góor daal moom moo ko tax a jóg ndax yàlla moom ba mu la bindee cër yi nga indaale woon ba ni nga màggate yépp ngi fi mm-hmm. kon soo demee ba làmb ci dara melut na nga bëgg am na lu tax mm-hmm. la tax nag wéradi lay doon wéradi ga nag dañ koy faj mhm. su fekkee ne dañ laa natt xam ne yow sa wéradi maanaam siti la mhm. dañuy boole traité la siti mhm. traité la ci sa wàllu ngóora bu ko defee nag soo ngaan yow kii moom moom li ñuy wax ci dëkk bi yow da koy dégg rek waaye sa yoon dootu ci ne moom yow mën ngaa demal sa bopp foo bëgg a dem moo tax ma bëgg nag ngeen ngeen góor góorgóorlu ci faj mi ak góorgóorlu ci faju mi bañ a toog rek di xool ndax it jamono dafa dafa dafa dox te wax dëgg yàlla dëkku leen yéen dong daal te da ngeen jël ay doomi jàmbur dajale ci kër gi kon nag war ngeen def yitte ci seen bopp bu baax a baax. <laughs> macha allah macha allah sëñ Fallou man xam naa garab yi ngay wax bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla ma leen di wax rek pour ngeen jóg daw daw ñëw si daal balaa balaa balaa daraa xew waaw balaa daraa xew daal ngeen gaaw ñëw li sëñ Fallou ma xo est-ce que wàll da ngay yëngu ci wàllum seet. waaw moom day daanaka boo xoolee suñu tàmbali ñi nga xam ne miinoon nañu bu yàgg daal ci diggante seet ak ñaan lañ xam mm. ginnaaw bi nag àddina di dox te comme àddina lépp gëstu la mm-hmm. lépp jàng la mm-hmm. ñu daal di demaat takkaat nag gëstuwaat nag jàng nag ci wàllu médecine traditionnelle mm-hmm. ba indi fi lii waaye ku ñu xam-xam suñu cosaan da ngay xam ne loolu moom suñu mbirum bopp la suñu yëngu bopp la loolu la njëkkee ci lii ba tax na daanaka loolu moom dinañ ci yëngu bu baax a baax baax macha allah te am nañ ci yaakaar daal am na ci yaakaar baax waa kay. kon nag kon nag kon ngeen war a xam nag sëñ Fall nag <laughs> nii la def da ko da koo complet mhm. te sama mbokk jigéen ñi dara bala dara bala nga ciy dugg sax da ngay da ngaa war a seet seetlu ba pare. Mhm. ah yéen ñi nga xam ne yéen a ngi lëkkale keneen mhm. bala ngeen ci dugg ñëw leen mu seetal leen ba xam mën naa nekk wala mënta nekk yow mi nga xamante ni boo tëddee guddi dangay xalaat rek. ñaaw njortu xel ñaar ñëwal mu xoolal la ci li ngay dugg lan la bala nga ci dugg sañ Fallou ngi nii jege na leen lool xanaa kay dama koy bàyyi rek mu joxe numéro téléphone ak fi mu nekkee. waaw léegi ñun daal ñu ngi nekk ci ginnaaw hôpital régional boo passé terre des hommes foo nekk sëñ Fallou Sow ñëwee la fii la bi mooy barab boo nekk sëñ Fallou Sow ñëwee la fii la numéro téléphone bi tamit 77 la 563 22 loolu tamit mooy numéro téléphone bi waaye daal soxna si ma di la dolliwaat di la wax ne la. Eh, ñi nga xam ne ay góor lañu denc soxna lu yàgg am 6 mois am 1 yàlla dogalul ñu mën a am njaboot te moom mu leer la leen ne du ci ku jigéen ki ci ñoom la buñ nëbbutu buñ làqatu góor ñi nag dañoo yab jigéen ñi ba nga xam ne lu xew ñu jiiñ leen ko waaye lépp du ñoom jigéen moom magasin la yor rek danga nga koo dénk li nga ko dénk moom bu baaxee incha allah la nga bëgg da nga ko amee waaye li ko dénk su baaxul ba noppi nga bëgg koo jël si mu baax tooñ nga ko tooñ nga sa bopp dégg nga may wax góor ñi nag ne leen ndoxum siti lu bon ci góor la ni muy tee am góor am góor doom sax du ko tee am góor am am am doom jigéen góor saa yëgee ndox maanaam yaram wi di di tàng guddi gi lu bari mu yëg ay waay yàllaam di tàng wala muy xasan wala mu am infection na xam ne loola su nappee ci loolu ma ngay jàll ca lam war a amee doom mën na ko oyofal su jugee ci oyofal ko day àgg ci di ko tuuti lool mën naa dem ba dootul génn dara ñi nga xam ne nag dañoo am jafe-jafe wallax njaan ba mu wàññiku lool ma leen di wax ne loolu moom fii ci kër gi dañ ko fi traité ba mu wér ci ñaari anam su la neexee nga dem ci docteur yi ñu nattal la ko ba ne fii la toll soo amee nangam di nga mën a am doom soo ñëwee ñu traité la suñ la traité ab diir ne la demal nga nattaat soo demaatee boo nattaatee di nga gis ne su su matutit jege na ko soo ñëwee boo continuer da ngay dem ba ba mat mm-hmm. su fekkee defoo loolu nag mm-hmm. wax dëgg yàlla képp koo xam ne loolu nga manqué ba mu teelaa am njaboot mm-hmm. nga jël ay doom ba ci yàgg nga gis sa soxna soppiku kon xam nga ne jooja tawat wér na dégg kon lu mel noonu sa amee tamit des na ko natt ci ñaar ci ci ci ñaar yëf yooyu may wax ne da nga ciy gis sax koo xam ne day ànd ak soxnaam ne ko demal hôpital mu dem ñu ne ko nee nañ nga ñëw mu yolliku ca ginnaaw dem ñu jox ko ay résultat mu def ko ci poosam du nangu soxnaam yëg ne lii kat li sikk ci moom la sikkee waaye da koy jiiñ ndaw si rek continuer ndax ñoom it dañoo neex a jiiñ comme ñoom ñooy <laughs> comme ñoom ñooy nàmpal ñooy yor gone yi boo leen ko jiiñee duñ mën a weddi te yàlla xam na ne dama lay wax ne la soxna 70 pour cent yi ci góor ñi la 70 pour cent yi fii may waxee yow nii ci góor ñi la te boo doxee tuuti di nga xam ne ma lay wax am na ci ñoo xamante nii sax àgg nañ ci dañuy ànd ak seen soxna ba fii daal ne ma léegi moom daal suñ waxee ba noppi na ma may ma wax su waxee ba noppi ci la lay doog a leeral bopp ne la yëf yi kat ci man la waaye bugguma moom mu xam ko yan ko yan ba rek kooka di dem ak moom te loolu tamit lu mën a ñàkk la damaa bëgg ngeen xam ne feebar feebar la faju rek ñu góorgóorlu ci wàllu faju mi te nit ki moom ab jaam moom saa yoo xam ne ne xam na ne yàlla moo ko bind moo koy wéral moo koy wéradil su sababloo suñ borom mën na koo dimbali la muy saafara mu saafarawu ma jàllaat yi geneen wéré di goo xam ne itam lu xaw a jaaxal euh, tubaab bi la ba fii may waxee ak ñoom amaguñ ci pexe mu leer te yàlla dogal na ñun te suñu borom defal nañ ci tawféex du suñu njàmbaar du suñu bari xam-xam waaye ndimbalul yàlla la mooy feebar bi ñuy wax hépatique moo am ñetti xeet hépatique C hépatique B waaye fii ci nit ñu ñuul ñi ñoom hépatique B moo ñu gën a la jël moom nag daanaka soxna si dama lay wax na la day sàcc nit ndax fi muy dale nit ak fi muy chronique six mois la te bu la dalee ba ba muy chronique du def benn signe ci sa yaram doo yëg dara lu dul ne chronique na mooy six mois yi te day wàlle ci wàlle bu gaaw dégg nga ba nga xam ne fi ne àgg na ci bari na ci réew mi lool te wax dëgg yàlla garab yi nga xam ne moom la yàlla saxal ci réew mii garab yi ci réew mi mën na koo faj ñu bari nag li leen di def njuumte mooy su ma nee mën naa faj nangam man la ñuy xool ne ma man maa ko mën a faj waaye déedéet yàlla mi indi wéradi gi moo joxe tegtal bataat ay garab yoo xam ne garab yooyu ñoom ñoo koy faj man nag li may def mooy sama xam-xam mooy dem gëstu ji garab bii lii la mën a faj garab bii lii la mën a faj garab bii lii la mën a faj ma dajale ko ba mu toll na ma bëgg ma liggéey ci garab du ma ko sol ci butéel muy forox ma def ko ay comprimés yoo xam ne ci sa pochette nga koy def soo saa yu naan jotee nga naan saa yu naan saa yu saa yoo reeree naan dégg nga bu dee yi ci des tamit ma jël sunguf bi li nga xam ne luy rees la ma defal la ko nga xam ne soo ko lekkee day rees amul bant amul lenn loo xam ne lu dul rees la ma def ci concentration bi ma soxla tamit ngir bëgg rek nit ki su ci jëlee tuuti mu mën koo jariñ ndax fi ne pot bii su ma ko bàyyi woon ni toll ci sunguf di nga am ñetti pot bii doo ko am benn pot bii léegi nag liggéey bi mu laaj nag moom laay def ba teg ko ci yoon woo xamante nit ki su ko jëlee dina ci mën a dina dina ci mën a jariñoo wax ne nag yéen ñi nga xam ne lu mel noonu daf leen a dal lu mu ci mën a doon bu dee lu mel ne hépatique da ngay dem ci docteur yi nga def sa analyse bañ ne la toll na barab sàngam jàngoro ji su fekkee ne àgg na phase terminale nag wax dëgg yàlla awma ci pexe waaye su fekkee ne sentir nga ko ci sa yaram nga dem def ko ñooy la àgg guut phase terminale te mi ngi ci biir yaram bi nañ la nattal ba la barab sàngam la ko xool ba xam ci yokk sama garab nag dama lay wax ne la bu budul feebaru góor boobu ma lay wax nga xam ne ñàkk mën a am doom ci góor la ak lu mel ni euh, hépatique ñaar yooyu moom seen traitement yumbul seen traitement gaawut waaye lu dul xeet yooyu beneen feebar bu mu ci mën a doon ci xeeti garab yi ma nga ñëw ma jox la sama traitement 15 jours nga naan ko wér di gën a dal yëgoo ci benn tan bul ñëwaat soo ci yëgee tan nag da ngay xam ne kat fi sa fi sa wér di toll lu ni toll ngay fajoo ndax nit ki mënoo feebar ñetti ñëwee semaine ngay faju munta ne ñun nag wax dëgg yàlla dam noo yeb waaye bu dee ci tubaab bi da dem ñu bindal la traitement nga dem docteur bi xool ko ñëw arrangé wu li mu bindalaat beneen nga dem jëndi ba ba ma ñetti weer ba ba ma ñeenti weer di ko ko nangul waaye ñun nag mënoo kenn ci ñoom du ñu may 15 jours ku ko naan benn yoon sax lu yëngu ci sa yaram nga ne moom la te fekk na boobu mën naa bañ a demee noonu may soññaan nit ñi daal ci ñu góorgóorlu faju ndax bu fekkee ne da di jugal sa bopp ñëw faju si yaa indi sa bopp waaye soo toogee ba ñu yëkkati la moom dañ lay yóbbu te boobaa ci ngay gën a sonal ki lay faj ci ngay gën a sonn ci ngay gën a sonal ñëpp moo tax daal yooyu moom indi woon nañ ko fii léegi su fekkee dese yoo bëgg a laaj itam ñu àggale. macha allah macha allah fi mu ne mat na <laughs> ñu ne ko mat na kon mbokk mi ngi noonu euh, sëñ Fallou ngi fii wax na leen fi mu nekke euh, garab yaa ngi nii nee naa leen nag xam naa ci dara moo tax ma dellusiwaat su ma ci gisu woon benn résultat su ma woowaatee du ma ñëw waaw du ma ñëw ndax man du ma dox ci yu lëndëm donc sëñ Fallou ngi nii yor na garab bi mën na leen a dimbale dina def te yàlla tax faj mi du da ñëw rek mu laaj la nàngam bi nga jox ko ko ci si bu la neexee mën nga ko ko defal ñaari pàcc soo ñëwee mu jox la nga dem faju xanaa faju sax balaa neex fay ga balaa neex dëgg ngay commencé gis lu lay satisfaire su ko defee delsiwaat ba day yomb moom dafa wóolu ay garabam de ku wóolu ay garabam la kon lañ ngeen jéem a ñëw rek giseek moom incha allahu sëñ Fallou ngi noonu mbokk yi bu ma leen ko nettaliwaat de